ne ko motuma la taalibe te boo gisee euh, MPCL ñëwee bi délégation kóllëre la ak taalibe la waaye dañ fee gis suñu bopp ndax kat boo nee sama réew mi moom nu moo koy doxalee nga ne damay dundal nit ñi ba kenn dootu jéggaani ndax kuy jéggaani mooy kuy xaaraan yem te kuy xaaraan da ngay ñàkk jom Serigne Touba dindi ko fi ànd koog maam Cheikh Anta loo cay teg mu ne damay jàngal nit ñi maam Cheikh Anta moo njëkk a jël ci àddina ñeen fukki imaam ñuy jiite nit ñi di jàngal gone yi ban dañu réer xam jom nga ne loo cay teg nga ne damay faj nit ñi ba mu tojee ba mu tojee Tuul tudde ko Touba Tuul moo njëkk a def précaution kon kooku dikk fi ba mu demee Ségou la ca gën a ba mu fa toogee dikkul ne dan ma fi indi damay ñibbi dafa tabax i immeuble ku njëkk a gis étage ca segu maam Cheikh Anta ko fa defoon da denc fa soxnaam sax ba muy dem da ko faa bàyyi maam Cheikh Anta moo njëkk a def précaution kooku. bu nu wootee cib dëkkam nga bëgg jàppale waa réew mi nooy def ki nga xam ni kii da daan fekk dugub ñàkk mu jënd ko ca bam seeree bàyyi ba nga xam ne bii bari na mu dolli ko xool ñi nga xam ne ñii ay néew dooleel nu mu ne leen lu ngeen mën ci dugub ñu ne ñu ne Pikini mu ne defal naa leen ko xaaju Pikini moo toj marché bind Touba néew ñëw leen lu waaye am na jaay ku jaay ba ngoon lu jarut mu jënd mayaat la ko néew du subaa ñëwal kooku ku bëgg a yorum réew dajale alal naan Serigne Touba neel ma ci biir yor sama baatin ma neel li ci biti yor sa saayir kon lépp demoon na ba Serigne bi lu ko nar a galfan ci diggante beeg nit ñi maam Cheikh Anta na ko bokk te la ma cey tënk du ma wax lu mu doon waaye wàcce na ba xam nañ ci dara maam Cheikh Anta ci doxuk moom moo mënoon ci nit ñi te kon moom mi bu dee doxuk bokk dama panafricaniste lan war na koo xool ci ba maam Alaaji Malick 1922 de mu ne lee Serigne Touba ne ko demal ma moo fa yóbbu ña ñeenti junni yóbbu fa ñaar fukki nag yóbbu fa téeméeri saako yi ceeb ak jëmmam ak maam Thierno koo ki dox nag bokk kon kooku ku bëgg a yorum réew ñu ne Daaru Salaam woote na nga tegge ko dem fenn sa bopp nga la tax a jóg waaye ki àdduna taxoon a jóg jaare ko ci Serigne Touba mag li jàmbaar ja kooku mooy Cheikh Sidil Makhtar koo kii bu dee baatin juróom-ñaari at def ko ban ko yóbboo ci ma sëñ ma sëriñ Njaay ca Bargny keroog ba mu nee ma naa sama mag ja jant bi so la dugg ca barax ba bi fajar di jot nuyu naa maga nuyoo naa magam ja teg fa tuuti yegg ci soxnaam soxna su tedd sama soxna Aysatu Mbàkke Anta Njaay ne ko man de jaakee naa mu ne aman ah, ko man de yàlla wan la ma malaakal mawti sëñ bi lay jël si mu ne kan mu ne eh, eh, sama sama baay bi mu maranta seli koo kii baatin jaaxalu ko waaye dafa faboon lépp bàyyi ak Serigne Touba ne ko jaam jaamaat moom dong nga mas a xool sa doomi bàyyi fab we ak weñ tàngal ko moom tàng mu ne ko loo ci jublu mu ne ko ñaas ma ndax bun ma jaawale mu ko say bokk na ne ab bambara laa di sab jaam kooki moo liggéey moo toj càq mi te foofee la tonte woon la tonto woon magam ju di ja ba mu ko ne la sëñ bi waxoon ci gis naa ko mu ne ko loo ci teg mu ne ko ñii lay béyal toppiwul alxuraan waaye la fo noonu la di def ci yow lu man alxuraan mu ne ko luy si te mu ne ko fanweeri dërëm mu ne ko jox naa la ko fanweeri yoon moo tëj ñaaxeen waaye nag xaju fi ndax taalibe yàkkamte nanu te doon ne ci yoon waaye kii amuñu ku ni mel alternance bii ñuy wax du première alternance Cheikh Anta njëkk a def alternance ba nu yi ak tubaab yi note moo moo financé Blaise Diagne def ko premier député noir kon ba ca demee ba ba nga xam ne bii ngelaw lu yor na ab bor ñu bëgg ko caa wiise moo ko fayal te te demoo ko moo bi jaa jaa jumaay cene ba te moo ko falaat député moo dem sigu toj ko ba muy dikk ngir woyof gum woyof ak fonk gum fonk Serigne Touba Gosaas la wàcc wutul ca puukare kon kooki su wootee ku toll ni Cheikh Tidiane Gadio ne panafricaniste la dama dama bëgg ànd kuy liggéeyal senegal ma ànd ak yow ma ci xeej ak seen gisuma ci sama bopp Cheikh Anta Diop fii la ca ceytu ndax kat borom état sub dénk ba nga xam ne bii moo nekkoon gaawaan yar soxna su gaawaan sunu bàjjen te kat keroog ba mu koy teral ca ba muy liggéeyal yàlla ca kër sëñ Amadou Lamine dane lu dagan ñu ne gileem xar ginaar nag mu ne lu ne fukk ba muy fukki fan ginaar mu ne rendi bam doy kon dama koy tënk foofu di santaat yàlla biñ bokkee ci ñëw daaru salaam ànd kii te nag man ñu ñaan ci barkeb Cheikh Sidil Mokhtar ca ngërëm la ko Serigne gërëm ndax doon mu ne ah mu ne ko nii nga móoli sama téere yi ca Tunisie yàlla dina ci fay benn boo móol téeméeri yooli téere te seex mu ne ah, mu ne ko boole daal ca saali yi waaye nag daal tuba tubaarkàlla tubaarkàlla yàlla nu daal dellu sutura wax di nga wax yëpp wax ju rafet di nga wax yëpp dañ koy boole aussi yéene ko suñu président Macky Sall du ko ñaanal mu jël message boobu xam ne message du Sénégal développement Sénégal mi ngi fii am na loo xam ne mën nañ ko jëriñoo ñun doomu réew mi pour jëmale suñu réew kanam